Kaliphone xale bu am cinq ans. Ah. am six ans war a jàngi école. Kaliphone ah. nga yen ko palaatu naana wala juróom benni banaana wala nga jox ko palaatu wala nga jox ko gerte caaf xale bi nekk ci naaj bu tàng bi Kaliphone eh, eh, eh, demal stade Sénégal dina mu dëkk Sénégal du Sénégal dina naqaree defar hmm. nee naa la dafay gën a metti sàll ngaari lam tooro te maa la ko wax tey ci tey jii tey la kañ tey la. da nga da ngaa yàgg ma tax ma teg si ma ma jaay naa jaay naa jaay màgget. su ma nee jàkk maam xam naa li muy jar lu la mës a wax takk ko téere mhm. man waxuma pour lu neex nit ak lu naqari nit. tey su ma buggoon lu neex sénégalais xam naa fi may dugg léegi ma leen ko waxee ñu yuuxoo ko daanu yéesi di maye kër. ak i mm. fële waaye duma leen ko wax parce que man du ma ne damay wax nit ki loo xam ne dëggul ci gis nga kali booy fen fenoo nit ñi sa bopp ngay fen. sooy jay nit ñi yow sa jëmmi bopp nit dafa am ñaari conscience conscience boo xam ne booy wax dëgg sa dëgg googu dalay tontu waaye booy fen sa fen gi dalay tontu. soo paree yow da nga naan man lii ma wax war naa ko wax moo ku rey nit ñoo yem. Mm. man su ma la bëggee dama lay wax dëgg su ma la bañee dama lay wax dëgg comme man ni ma nit di ma gisee di ma wax dëgg ma di ko dégg xool ndax kii li ma wax dëgg la ma jëriñoo ko li ma wax intéressé wu ma ma bakko nit da ngay nangoo la wax dëgg yàlla ko moom ku la wax dëgg dama ne la Sénégal dafay gën a metti Californie parce que ah. benn nit ñi amatuñu yërmande rey nañu yërmande ci xolu sénégalais yaa ngi may dégg hmm. yi ñi leen jiite yërëmuñ leen président yi falu war leen a ubbil ay buntu dimbali leen yërëmuñ leen kilifa yi ñu yaakaar ci àddina yaakaar leen àllaaxira yërëmuñ leen parce que kilifa dëgg bula la yaa boo ko yaakaaree ci àddina yaakaar ko àllaaxira kali ki la war a dugal àjjana ak ni yombal xiyaam mel yàlla war a woote penc mu rëy moo xam ne hmm. trente ci atu yàlla nga xam ne sañu benn fan ci yàlla ay million wi at la ci ñun yàlla ne trente sept mille ans juróom-ñaar fukki junni at ma taxawal leen yéen jaam ñi di leen atte jël jant bi nga xam ne mi ngi sori addina bi presque ay millions de kilomètres la sori àddina bi ak ni mu tàngee yàlla ne dinaa ko indi teg ko ci seen bopp yi ba mu tiim seen bopp yi ba pare ma jël jinne yi ak ni jinne rakloo yàlla ne ma jël jinne yi ñu wër doomu aadama yi ba doomu aadama yi du ñu am fu ñu jaar ndax boo turnee yam ci jinne doo daw mu ne ni jinne yi rakloo ma jël malaaka yi ñu wër jinne yi fu jinne yi wëree nit ñi malaaka yi wër jinne yi kali bés boobu lu ko gën a raklu hmm. may xëcc safara juróom-ñaar fukki junni seen seen bu juróom-ñaar fukki si xaw ma naata seen seen bu ci nekk juróom fukki junni malaaka di ko xëcc ka safara di yuuxu di bëmb di yuuxu di bëmb di yuuxu di bëmb nee nit ñi dañuy tiit nit ñi dañuy tiit ba jël seen loxo yi di ko yëy te duñ ko yëg di lekk seen loxo yi te duñ ko yëg nga gis nit di jël doomam naan yàlla lekkal safara safara lekkal sama doom ji te bàyyi ma moo waral ñu naan yaay danaan doom juruma la bàyyi danaan doom juruma la ëllëg hmm. yombal xiyaam tiitaange googu dina jàpp doomu aadama mu war a dem lijjanti boppam wara mu lijjanti ay doomam naan maa ngi dem wëri ji Kalifon sàll ma nga xam ne nee woon na man la doon ma fe fobeereel man la doon liggéeyal ma dugal ko àjjana te fii ci addina bi yow problème bi nga nekke yaw mi nga xam ne yow laa yaakaar yaa ngi tëdd ci ay milliards te doo toog bu mukk nga ne ana yéen ñi nga xam ne yéen a ma yaakaar ëllëg yombal xiyaam kaay ma jox leen dix milliards yi ngeen séddoo ko ngeen faj seeni soxla te gis nga ne ñu ngi ci coono ñi jiite sénégalais yi ñoo leen yërëmul ñi jiite sénégalais yi ñoo amul yërmande ci sénégalais yi muy ci politiciens yi muy ci diine ji muy ci lépp sénégalais yi daal ñoom ñooy kumba amul ndey kumba amul baay donc li tax ma ni la dëkk bi dafay gën a metti parce que ñooñu ñoo yor daraja ji ñooñu ñoo yor teraanga ji ñooñu ñoo yor wërsëg wi te bés bu ñu séddalee wërsëg wi ba sénégalais yëpp am kali nit bu amee teraanga dootoo ko mën a noot tey laa lay wax loo xam ne boo ko déggatee kenn du la ko wax. ci man mi bëgg kilifa yi kilifa yi ak politiciens yi dañoo bëgg sénégalais yi nekk ci pauvreté dund ci dee ci pour ñu mën leen a diriger. Hmm. kale ku am teraanga noo koy noote Kaliphone ku am teraanga faaleetu la hmm. lijjanteetu la soo ko nee raxasal ma dootula raxasal soo ko nee baleel ma dootu la baleel parce que li mu bëgg am na ko nit ba lay mën a daagu ci sa ginnaaw di la maral say taat daay fekk mu ñàkk boo ñàkkee luñ la def loo da nga koy def dangay ngay waye di waaye boo amee rek nekk nit hmm. boo ñàkkee dangay ngay hmm. waaye boo amee da ngay nekk nit hmm. te ñii nga xam ne ñoo jiite sénégalais yi muy ci kilifa yi ak ci politiciens yi bëgguñu sénégalais yi am bu ñu bëggoon Sénégal baax suba suba day baax suñu bëggoon senegal am teraanga ñëpp gis ci seen bopp di faj seeni soxla kenn dootul demati ci gaal barke alxuraanu karim bu subaa bu politiciens yi kilifa yu toogee waxtaan ne nañ defar dëkk bi dañ koy defar. dëgg waaye bëgguñu ko. parce que kaliman bala ma lay mën a noot day fekk bala ma lay mën a sant nga defal ma day fekk nga am ci man yaakaar nit ki boo ko yaakaarul nit ki boo amul woon boo ko soxlaalul dara lum la sant doo ko ko defal. Hmm. waaye pour mu mën laa sant. nga defal ma pour ma mën laa wax nga déggal ma pour ma mën laa digal nga def ko ma tere la nga bàyyi day fekk nga yaakaar ma tey da ko day feeñ ci artistes yi artiste bu ci am xaalis dangay am téeméeri coggu booy sol sa dàll sa dañ la koy fompal waaye ki lay fompal say dàll du question que ni yow la bëgg dafa am lu mu yaakaar ci yow bu ko amee boo ko santatee ne ko fompal ma sa lay dàll da lay saaga nday ne la du ma sa moroom dëkk bi nag day gën a metti xale yi dañuy gën di pauvre. mais na Pape Pape Pape da ngay tiital ndaw ñi. ndaw ñi ne changement changement jëli di ay teg nga ne dëkk bi day gën a metti si yow. avant Ousmane Sonko di toog laa leen ne bu ngeen amoon cinq cent mille Sonko du dëkk bi du changé. dama leen ne man waxuma pour waxi politique de. Sonko hmm. moom deful dara. Sonko lu ko waaye wax tooñ ko. jomaay lu ko Afrique Afrique bindoo noonu. Sénégal mo bindoo noonu. dama ne la. Afrique moo bindee noonu Sénégal moo bindoo noonu wax ji nag neexut a dégg parce que xam nga sénégalais yi wéruñu ay dof lañ. ñoom li ñu bëgg mooy dëkk bi dina neex suba dëkk bi dina nangam comme niñ leen koy diggee ñuy toog di dund yaakaar ba xëy dugg ci gaale di dee. da nga leen di wax liy réalité bi bu ñu amoon téeméeri junniy président dëkk bi du baax parce que xam nga li tax dëkk bi du baax. ñi leen war a baaxal ñoom ñoo leen baaxalul ñi leen war a dimbali ñoom ñoo leen dimbaliwul ñi am alal ñu ngi toog riche am seen teraanga jàpp seen ñàmbur ba pare limité seen njur tali nañ waxante dëgg borom alali boo demee fan résidence wala nga dem almadi da nga fay fekk kër goo xam ne cinq chambre la wala dix chambre salon am piscine am garage oto yi di daw ci biir kër gi benn chambre bi la jëkkër ak jabar ji di dëkk beneen chambre bi chambre pa bi la mooy chambre privée benn bi doom bu jigéen bi benn bi doom bu góor bi benn bi chambre gardien bi benn bi chambre bon yi hmm. quatre chambres yëpp dañ koy tëj parce que dañoo xam ne àddina danga fi yàlla daf la fi indi pour nga liggéey daan sa doole contrôler sa bopp hmm. yàlla dafa bari yërmande bari xéewal ba loo ko ñaan mu may la ko soo bëggee junniy doomi dala koy jox waaye mm-hmm. bu la ko joxee dala naan yaay jël responsabilité bi mm-hmm. parce que li nga ma ñaan rek laa la may soo jëlu responsabilité bi ëllëg yombal xiyaam dama lay teg ci sama kanam teg sa njaboot nelal nag ndax toppatoo nga ñi moo tax gis parent yu bari ëllëg yombal xiyaam bala ñoo dugg àjjana dinañ la yokk seen njaboot yi tey ki nga xam ne tey dafa am alal mën a toppatoo doomam day limité jur am benn doom ñaari doom comme ni ko tubaab yi defee a borom alal yi nekk Sénégal yor seeni alal bu ñu amee ñeenti doom wala juróomi doom sax doy na parce que dinañ xëy liggéeyi dinañ xëy dem vacances dinañ xëy dem Paris dinañ xëy dem kermesse cathédrale dinañ xëy dem a may ma ñëw may ma rek ma ñëw may ma ma ñëw waa rek xeetu sallallahu alayhi wa sallam la ñuy yaatal wa sallam leen njëkk a ndax yat lay yor ëllëg yombal xiyaam téye leen parce que bëggul njaboot ak ñëw gaaw xeetu sallallahu alayhi wa sallam la ñuy mais Kaliphone da ngay fekk koo xam ne yorul dara lekkul naanul deewul dundul liggéeyul xëyul gontuwul takk ñeenti jabar yor ñetti néeg walla ñaari néeg jabar juti na nga bàyyi ko benn néeg Kaliphone sa jabari yi jur ku ne neuf doom kali quatre jabar neuf fois quatre nga am ku ci ay doom ñii di tëdd ci kaw terrasse yi ñii di tëdd ci mbaaru xar yi ñii bu ñu tëddee ba fajar ñu jeewu ñeneen ñi tëdd ba midi ñu yeewu ñeneen ñi tëdd téléphone mënoo dundal xale yi mënoo leen jox ñu lekk mënoo leen jox ñu naan mënoo leen toppatoo mënoo leen yóbbu école xale yi duñu jàng ba pare booy bu juree xale yi ñëw yonent bi li mu ne sama xeet nañ ko yokk mooy boo juree sa doom nga téye ko waaye dañuy jur ba pare jël xale bi takk ko ci mbuus dem kër bàjjanam joxe ko fa ne leen yaxam laa la laaj wala ñu dem kër nijaayam joxe ko fa ne yaxam laa la laaj wala ñu dem fekk sëriñ boo xam ne nee na day jàngale daara ñu jox ko ko ne la yaxam laa la laaj doo dem xool xale bi ndax lekk na doo dem xool xale bi ndax naan na doo dem xool xale bi ndax feebar na doo dem xool xale bi ci lan condition la ne yow ba nga ko joxee sëriñ ba daal comme que nekkatul ca kër ga parce que amoo loo ko dundalee joxe nga ko fa mu nekk rek yow bàyyi nga ko bu xale bi deewee sax mbaa feebar sax yoon nekku ci xale boobu nekk foofu ñu koy mitital dinañ ko dóor duñ ko jàngal su yeewoo sëriñ ba ay doomam ñu ngi jàng ay doomam ñu ngi lekk ay doomam ñu ngi nelaw di tëdd ci climatiseur yi di tëdd ci ay matelas yow sa doom ñu yóbbu ko ca mbaar ya tëral ko ci basang bu yeewoo ëllëg ñu jàngal ko ñu jox ko pot ne ko demal nga yelwaani parce que sa ndey daf la indi wala sa baay daf la fi indi bàyyi la fi te joxuma joxul joxuma lu ma la dundalee xale bi nekk ci mbedd mi di wër di yalwaan nga ne ko 500 cent la sas boo indiwul 500 yi boo ñëwee dinaa la dóor su ñëwee indi cent 450 nga boole ko ay ponkal yoo xam ne dañ koy tànd par quatre dóor ko ba yaram bi dagg bu subaa bu waree ñëw te yorul cent bu gisee ku teg téléphone mu sàcc ko wala mu dugg ci bitik sàcc fa 1000 francs te pourtant xale boobu tàmmul sàcc waaye yow yaa ko poussé pour mu sàcc ndax yaa ne da koy jàngal. te li nga ko sas sasoo ko say doom say doom a ngi nelaw li ngay dundee xale boobu moo la koy dundal xale bi dina jàng ba wàcc te boo ko nee taril ma bisimilahi rahmaani rahim du la ko mën a taril soo waxee ñu ne la waaw dañuy dañuy toj seen xol ak dañuy nangam e nit ki soo ko bëggee jàngal mu nekk nit li muy jàng mu dugg ci boppam da koy teg ci condition yu baax Kaliphone màkk dañuy tari alxuraan ji ba ngay jooy te doo gis ay xale yu yor ay pot di yalwaan Maroc gii sénégalais yi fa ne gis nañ ne dëkku jullit la jàkk jànga yu noddu xale yaa ngi tari alxuraan bi bay jooy te doo gis ku yor pot di yalwaan Afrique kese ngay ñëw ñu ne la xale bi bala ngay jàng bala ngay mokkal alxuraan dangay nekk dof dangay waga dangay jaxase mbaxal jaxase ceebu jën jaxase ceebu keccax jaxase laax jaxase nangam pour lekk ko pour lan. xale yooyu nag bu ñu nekkee ci loolu di ko dundu te xale du fàtte xale dafa mën a jàpp Kaliphone loolu nga jàpp ko ci sa biir xol bi di ko dundee naqar googu gisoo nday gisoo baay Kaliphone mu leen la ni fii nga nekk nii kii fi ne ragal nga ko ñemewoo ko mi ngi lay mitital mi ngi lay def looloo xam ne buggoo ko Kaliphone vidéo bi nga gis xale bu jigéen boobu fekk taalu yi ñuy nelaw ci suuf te mu dugal leen ci këram vidéo boobu mi ngi ci sama paas saa ma ko seetaanee Kaliphone damay jooy. Hmm. xale yi ba leen ndaw si doxee ba gis leen fi ñu tëdd ne leen di tax ngeen tëdd fii mu ne leen dañoo gëmmentu xale yi dañoo dugg ci saaru ndaw si rek tàlli hmm. kale xale boobu nga foog ni kooku dina màgg dina màgg tey jii yor teraanga xale bàyyi ma sax man maa ngi dem heure julli jot na ma man ma dem julli ji man. man daal nga dem lim moom. yee ba mu neex. ba mu neex sàll gaal. jamono jamono jooju ñoom ñu ngi dem joxe ji ku ñu yaakaar lu mu moom. ñoom nañu dem jaamu ji ki ñu yaakaar nañu dem bayali ki ñu yaakaar nañu dem euh, nu mu tudd raamali ki ñu yaakaar nañu dem fobeereel ki ñu yaakaar man ki ma yaakaar. yàlla ki gëm. ki yor sama àddina yor sama allaaxira ki may jëriñ àddina di ma jëriñ allaaxira ki may dugal àjjana mën maa dugal safara ki may yërëm ki may jéggal ki may suturaal ki yor sama teraanga yor sama dund yor sama de kenn la muy jalla jalaaluhu wa azal kamaaluhu rabbi zul jalaali wal ikram sama waa ji kenn ki lay taxaw adduna ak àllaaxira. ëllëg yombal xiyaam laa ne lu fa waay am téye ko soxlawu ma dara kenn lu dul sunu borom. temps eh, bi man nag sama maama la nar a romb nag ëllëg di toog. dama ne la ëllëg xaakaa wax la am na benn waa am na benn waa ju fi mës a ñëw fekk ma fii ci Amérique. ne ma pap ma ne ko ah mu gis ma te kat commencement bi ba ma gisee <coughs> daf ma séen ñu ne ko Pape Mbaye nekk ne ma gaare sama oto ma jënd oto bu rafet. mu séen ma nag ndeysaan xam naa ci kanamu taalibe bi mu ne eh, nee na xam nga yooyu Papa Mbaye mu ne eh, xam naa eh, di di jéem a di ma jéem a xeeb mu gis ma gaare oto bi oto baa ngi rafet xam nga dañoo bëgg lu neex lu rafet mu jékki-jékki fi ñuy waxtaanee ba mu yàgg mu ñëw fekk ñu fi ñu taxaw mu romb romb jékki-jékki am ku koy nuyu am ku ko ne Pape kii mooy yow sëñ bi kii mooy Pape Mbaye mu ne ah, waay waay waay waay na nga def ça va bien ñuy waxtaan di waxtaan mu jékki-jékki daal na ci biir wax ji ki ñu taxawal am lu muy dem jëli ji ci otoom pour ñëw rek mu jékki-jékki dama ah yow sa bi bakke na ne waaye de macha allah ah lii de boo ma ko joxoon addiya moom bu ëllëgee yomal xiyaam ci ñi sama maam di njëkkaramu ci ngay bokk ma ne ko sëñ bi mu ne ma ah ma ne ko ëllëg yomal xiyaam boo moytuwul man ma ramu sama mu ne ma ah yow sa wax na de ma ne ko ah yaakaar gi nga am bëggam ne sa maam mën na dugg àjjana man noonu laa am yaakaar googu kale nañ waxante dëgg. àdduna yàlla ki ngay yaakaar. ne moo lay ràmm yombal xiyaam moom xamul ni day dugg àjjana. lan moo leer ne kooku mi ngi àjjana. yaakaar rek la ñam. yaakaar googu mu am moom. ci maamam ba mu leer ko ne maamam day dugg àjjana man yaakaar googu laa am ci suñu borom. parce que yàlla nee na li nga yaakaar ci man rek moom ngay gis soo yaakaaree ni soo ñëwee ma mbugal la boo ñëwee ma mbugal la waaye soo yaakaaree ni soo ñëwee ma jéggal la boo ma jéggal te man sama boroom yaakaar laa xam ci moom mbaax naan ko rahman ar rahim al malik al karim al aziz al jabar al jalil al majid al xuduus al manaan arrafuur sunu borom bu tedd bi mooy borom yërmande gi yaakaaruma kenn liggéeyuma di ko jox kenn joxuma ma samba joxuma ma demba kenn gënumaa jege yàlla yonent bi la yàlla ne moo gën ci mindee fi à part yonent bi nanguwuma kenn ku ma xanaa xanaa Pape da nga am maamu ibaadu aw ma benn maamu ibaadu yàllaa ma bëggal boppam rek non parce que damay dégg ibaadu yi rek ngay waxee noonu de yàlla rek <laughs> waa man man maa ngi sant yàlla bu ma tey bu ma nekkoon ibaadu damay sant yàlla parce que xali xam nga xam la xam nga lan mooy ibaadu. Hmm. ibaadu mooy jaamu yàlla. Hmm. ibaadu loolu lay firi di. waaw mais dafa am dafa am am ñun leen di waxee fii dama ne xam nga Sénégal tey senegal tey ñoom ñooy xaste naan ibaadu yi di leen saaga hmm. waaye tey boo tuddee ibaadu nga saaga ko yow saaga nga jaamu yàlla parce que ibaadu mooy jaamu yàlla ibaadu mooy jaamu yàlla ibaadu rahman raxmaan mooy ibaadu mooy jaam ar mooy yàlla hmm. ibaadu mooy jaamu yàlla man duma ibaadu maa ngi ñaan yàlla nag ma nekk ibaadu mooy nekk jaamu yàlla waaye man yàlla daf ma may loo xam ne moom ma gënal xaalis moo ma gënal oor moo a gënal jamaa moo ma gënal Amérique gii moo indi may ma ay milliards moo ma gënal lu ma mënti am ci àddina mooy yàlla daf ma may ma gëm ko moom kese kese kese kese kese hmm. wéeru ci moom kese yaakaaruma kenn yaakaaruma sama ndey yaakaaruma sama baay yaakaaruma kilifa yaakaaruma sëriñ yaakaaruma wàlliwu dama la ne ëllëg yombal xiyaam buñ fa demee sax yonent yi ma leen fa yaakaar man yàlla kese laa yaakaar. am nga si am nga si am nga man yàlla kese dem. kali yoon waa ngi nii trace baa ngi nii parce que yàlla dafa leeral. yàlla dafa ne yàlla dafa ne. mani waa même ma daaneel si même ma daaneel nga ñëw. mani yàlla dafa ne. yonent bi sallallahu alayhi wa salaam daf ko ne yow suñu borom sa jaam ñii nga ni ma wax leen ñu jaamu la suñ ma laajee na yow yonent bi ana yàlla mi ngay wax fan la ne lan laay wax yàlla ne ko suñu ma laajee nee leen maa leen gën a jege seen buumu xol xam nga yow sa xol bi ci nekk bi ci bi nekk sa dënd bi buum bila la doxale ak moom buum bi la doxale ak moom xam nga moo la gën a jege yàlla ne la bum boobu man maa la ko gën a jege. te ku ma woo man yàlla ma wuyu la. parce que maa ngi dégg lépp maa ngi gis lépp foo nekk yàllaa nga fa. yow nag yaadul xam ne yàllaa ngi ci yow waaye foo nekk yàllaa nga fa parce que amul lenn looy def te yàlla du ko gis. amul lenn looy wax te yàlla du ko gis. donc kooku nga xam ne foo nekk mi nga fa te boo ko woowee mu wuyu la. soo ko boolee ci say mbir mu bokk ci soo ko booleelu mu bokk ci Kaliphone nga dem ci moom nag. dëgg nañ dëgg. moo tax ma wóor fii ma ne la fi nga wéeru fu jara wéeru la. Mhm. parce que boo ubbee alxuraan wala koo mënti laajte daf lay ne ku suuf si mosoo dégg ñu ne maamu diw wala papa diw. Mhm. yàlla ku moom asamaan si yàlla ku moom ajana yàlla ku moom safara yàlla kuy rey yàlla kuy dekkil yàlla kon topp yàlla wóor de. xam nga ñun lu ñu am tey booy wax naan yàlla laa yaakaar sax nit ñi dañ koy jël di ko jàppee ay dafay jaaxal nit ñi parce que gis nga ñun Sénégal ñun yàlla dañ koo jël tege ko nële. dañ tey senegal dangay gis kali li may gën a métti da ngay gis ko am teraanga am xéewal am jàmm am salaam am wërsëg. am lu dul jeex. ëllee mm. nga ni maa ngi sant suñu borom te li nga xam ne moo ma ko may. Mm. waaye Kaliphone da ngay taxaw ñu dëkk nit micro mu yor teraanga ne man maa ngi sant Kaliphone mii nga xam ne lu ma am moo ma ko may. Ah, maa ngi sant may sama yaakaari àddina ak àllaaxira ndax lii yëpp moo ma ko defal. nga xëy suba Kaliphone moomu am problème doomam dee. Mm. ma bi ñaana lu ma la ko. wala accidenté wala musiba am wala taax mu daanu e lée mu ne maa ngi sant Kalifone mi nga xam ne moo ma defaloon loolu day jël lu ñaaw lu bon loolu daan ne ah maa ngi sant yàlla xam nga yàllaa ko dogal mbir mi mbir yàlla la ñoom pour ñoom yàlla lu bon rek lay dogal ñoom pour ñoom yàlla du dogal lu baax parce que waxuñu leen yërmande yàlla gis nga yàlla pour nga bëgg ko dañ lay wax mooy kankali bis ñu la jàppalee suñu borom bu tedd bi kaliman xam nga lan moo ma bëggloo yàlla dégloowuma ko Sénégal hmm. man bi ma ñëwee Amérique damay déglu tubaab yi français yi ñi nekk France waaraatekat yi hmm. ñuy wax ci français ñu naan qui est Allah ah. man yooyu laay déglu qui Allah ma dem ci hmm. anglais ñu ne who is Allah kali ñu lay wax màggaayu suñu boroom ñu naan la yàlla moo bind àddina bi yàlla mooy ki nga xam ne. ak pap maanaam daal boo ñëwoon France wala Amérique wala kii boo taxee si jàkkee ak jumaa yi da ngay dégg ñu ne yàlla yàlla yàlla yàlla. te tey lu bëri boo toogee sama sama maam sama la plupart dama ne la sénégalais dafa ñeme nax boppam. sénégalais day nax boppam. te gis nga ni ñu toogee ci àddina bi nii di yuuxu. yal na leen yàlla defal jàmm defal ñu ko defal ko mbooloo mi jullit ak bépp doomu aadama parce que yéenewu ma leen lu bon parce que sénégalais hmm. ndax man xaw ma fu may mujje yàlla rek a xam tey nit mën na ma yéene lu bon waaye man yéenewu ma leen lu bon maa ngi ñaan yàlla jéggal ma samay bàkkaar dugal ma àjjana hmm. dugal mi jullit ak bépp doomu aadama àjjana. Hmm. waaye gis nga nax gii ñu nekkee nii ñu ciy dund bu ëllëgee yombal xiyam damay ragal ñu am mbetteel comme ni nga ko amee fii ci àddina parce que gis nga kali da ngay gis ñu toog naan leen waaw tubaab yi gëmuñu yàlla tubaab yi gëmuñu nangam gëmuñu Seydina Mohamed et eh, Californie sénégalais yu bari laa la wax suñ dul ay naafiq ñu ci bari bi ñu duggee Europe lañu ñu commencé julli. sénégalais yu bari bi ñu duggee Amérique gii lañ commencé julli. dama ne la. Europe ak Amérique dañ fi xamee yàlla. man lima xam fii ci suñu borom bu tedd bii fii ci Amérique. Kaliphone ba ma nekkee Sénégal su ma ko xamoon suñu borom tey doo ma tudd. doo xam sax maa nga ca jàkk ya. boobu yaa ngi tal taluma ko. Hmm. parce que taluma jaamu yàlla. sénégalais xam nga lan moo fa am Sénégal fecc. reetaan ambiance mbaboor toog di jëwandoo doo tal sax jaamu yàlla doo ko xalaat. parce que doo wéet te yàlla bala mu lay feeñu nga wéet yàlla dafa bëgg ko wéet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ko Jibril di fekk naan ko iqra Hmm? ko bàyyi ba mu dem ca montagne ba wéet fa moom kese. Hmm. mënoon na ko fekk ca néegam ca kër yaa Xadija waaye fekk ko fa yàlla def ko nax di ko jat di ko jat di ko jat def ci xelam beeg xol bi pour muy wéet muy dem di wéet di wéet moom kese ba mu wéetee ca la yàlla fekk ca la yàlla indi waxam yónni malaakaam mu ñëw sayyidatul mariyama ba yàlla na mee Insa juddu Jésus Christ yàlla def ko wéetloo. Hmm. ne ko bàyyil sa mbokk yi def ko ci xolam yàlla buy wax ak yow du la wax ci kàddu dala koy def ci sa xel mi ak sa xol bi nga di ko santir hmm. yàlla ne ko bàyyil sa sa mbokk yi nga dem nga wéet dem jaamu ji ma ba mu demee ba wéet moom kese nekk moom kese cala la malaaka jibril ñëw ne ko yàlla nee na dama lay may si doom ca la ko ëf hmm. ca la ko ëf ne ko juddu donc dajaloo bu bari nga foog ni diine diine la wala nga foog ne yàllaa nga fa ñu ci bari doo fa am yàlla. Hmm. dajaloo di yuuxu dajaloo di tëgg dajaloo di. rawatina góor ak nañ waxante dëgg dama ne la gis nga. Hmm? soo wéetee wéet ak sa borom. soo wéetee yàlla da lay wéttali si. Hmm. tey soo ñëwee fii ci Amérique am na ñu bari ñoo xam ne wéet gi ñu wéet ci la leen yàlla dugg ci seen biir xol ñu commencé di gëstu suñu borom. di ak di woor Europe gii ñu bari ñu ngi tukki. waxuma alal jiñ ci am waaye seen diine dafa gën a baax ci dëkku tubaab yi. kon buñ ñee dëkku tubaab yi kon buñ dëkku tubaab yi amul diine buñ ñee tubaab yi amul lislaam dañuy nax seen bopp. man fii laa xamee ni yàlla ndakate moo ma bind man dama foogoon ni man. kali lool sa bëgguma koy fàttaliki ndax dangay ngay yeewu ñu naan la sa yaay ne la man kii laa yaakaar kii laay ñaan boo lekk booy lekk ne barke diw soo lekkee ba pare ne jërëjëfe diw sooy génn taxaw kali kali kali kali taf ci sa kanam gi diw yooyu ngay yaakaar hmm. comprendre nga donc man bi ma ñëwee fii ci laa commencé di gëstu di seetaan YouTube yi di gis ñu lay wax kan mooy sa borom parce que ñun dañoo foog ni ñun rëyaluñ ñu yàlla ci sañu kanam. ñun ñun ay nit lañu jël rëyal seeni jëf. rëyal seeni i jëmm ci sañu kanam ba ñu rëy ba ñu foog ne ñoo ñoo ëpp yàlla ci sañu kanam. Californie dañ lay wax màggaayu nit ba yow da ngay foog ne yàlla ak kooku ñoo maase parce que senegal dañ leen jàppal ne yàlla benn paabu sol la toog la yoru yatam di xaar nit ñi pour duma leen. Hmm. te Californie da toog tubaab yi walla naari di la wax màggaayu suñu borom Kaliphone di la wax àddina bi ni ko yàlla binde di la wax ne la fii nga taxaw toog fi di wax bul la boo xam ne ni mu toll kenn mënula ko koo xaymaal ci ni mu rëyee te taxawul ci dara bul buy wëndeelu la di tourner te jant bii ngay séen mu nekk lu la sori mel ni egaat ci tuutiwaay yaatuwaayam boo ko doon xayma mën nga jël àddina bi un million fois nga dugal ko ci. un million fois nga dugal ci jant bi ndax rëy. ñu ne la jant boobu am na biddéew yoo xam ne pour nga am benn biddéew dangay jël jant bi def ko un milliard de fois. pour nga am benn biddéew. Hmm. ñu ne la te yàlla bind na ay milliards yi sa micro bi dafa tëju. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg sa micro bi. Mm-hmm. kale gaa yaa ngi may woo.